bu bu muy tontu euh, kële Ousmane Sonko à plusieurs reprises mu ngi répété force doit rester à la loi. Mhm. léegi bu ne la loi cette loi là bu ñoom ñëpp ñuy référé wu. Mhm. loi boobu moo ne. Mhm. Hmm? parrainage bi te ñoom ñoo ko fi teg. ñoom ñoo ko fi teg. ñu ne parrainage bi danga nga war a déposer entre zéro virgule cinq et pour cent du fichier électoral mu tolloo. ak euh, comment dire ay chiffres yoo xamante ni leer na nañ. Mhm. ñoom chiffres yooyu ñu ne lii mooy minimum bi maanaam lii moo gën a ndaw boo ko boo ko matalul kenn du ko jël soo ko matalul kenn du ko jël. Mhm. lii moo gën a ndaw mooy minimum. ñu ne lii mooy maximum lii mooy gën a rëy kenn du ko dépassé. Mhm. maximum mooy loo xamante ni ci olof kenn du ko dépassé. ah waaw léegi bu ñu ne lii moo gën a ndaw lii moo gën a rëy kenn du ko dépassé yow nga dépassé ko. dépassé kay dépassement la rek. Mm-hmm. parce que tey bu nekkee dañu wax ne non benn parrainage moom garaaw. mais ñoom Barthélémy Dias bu leen neexee ñoom tamit ñu ne parité bi benn góor la rek garaawul. ou bien. absolument parce li ñuy wax ni yëpp mooy bu ñu génne woon benn góor dugal fa benn jigéen. coolu coolu coolu jeex. c'est la même chose ici. Mhm. donc soit dañuy respecter la loi pour tout le monde soit ñu bañ ko respecter. Mhm. pour kenn. Mhm. pour man loolu mooy sa sa sa sama avis sur cette question. maintenant par rapport ak euh, li euh, euh, Ramatoulaye doon wax sànq. yaakaar naa ne am na si loo xamante ni daf ko xaw a parce que quelque part ñoom waxuñu ne euh, Khalifa Sall dañ koy jox euh, dañ koy euh, dañu liggéey ci benn affaire jox ko Khalifa Sall. ñoom mhm. ñoom liggéeyuñu ci dara ñoom dañu ne Khalifa Sall wóolu nañ ko na dem defar investiture yi ñu ne ko ci li ma dégg ko wax mu ne su demee defari investiture yi am kenn koo xam ne dafa génne ay réserve mu ne bu Khalifa Sall defee ba pare ne indiwaat parrainage yi ñoom ñu vérifier Khalifa Sall ne moom loolu du ko mën. le temps na lui permet pas soit dañ koy jox confiance moom mu defar li si ñu déposer ko directement soit ñoom ñu jël ko defaral ko seen bopp. loolu laa mm. dégg. waaw c'est ça c'est ce que je dire en fait. <laughs> waaw waaw non c'est xam nga. Mm. yow euh, fi ñu comprendre leen. mooy danga nga ne euh, comment dire ñoom dañu defar ne Khalifa Sall yow lañ def confiance. pour que lu mu tuddati euh, noonu liste yi dañoo toog ñoom ñëpp xam nga pour que ñu établir liste yi ñii nekk ci biir liste bi léegi am na ci kenn ku def réserve mu ñu ni Khalifa la nag moom il faut que mu bénéficier de la confiance de tout le monde ou bien kon ñoom ñu xool nu ñuy def. c'est xam nga xam nga ah. le le le problème peut être clair. Mm-hmm. xam nga c'est c'est euh, Yewwi Askan Wi c'est vingt six entités. Mm-hmm. partis politiques et mouvements. parce que ñoom ñëpp duñu ay ay partis am na si ay mouvements. bien sûr mais vingt six entités de façon. Mm-hmm. xam nga vingt six entités yooyu. Khalifa Sall mënul xam le le nombre total de tous les militants. qui sont dans ces vingt six partis là. Mhm. moo taxoon mu demander à ce que chaque leader. Mhm. nga proposer quelques personnes. au niveau de ton département. et des mhm. gens au niveau de la liste nationale c'est sur ces bases là cette base là maintenant que Khalifa mën a jël par exemple si à Kédougou si à Kédougou par exemple yi euh, mi nga xam ne moo xam di Kédougou moom il peut dire à man jëlal ma diw ak diw naa ko foofu man foofu xam nga foofu la ah. maîtriser. Ah. national defal ma diw ak diw addu mhm. te foofu ndax laa bëgg sax dina foofu naa si laal tuuti mhm. grâce parce que moom tamit mu ngi kaas mais bu jëloon bu bindal wóor na ma ne bu waxoon xalifa départemental Kédougou maa fi bëgg a nekk mhm. maa ko bëgg a diré wóor na ma xalifa du ko dindi mais foofu la waroon dem sax foofu la waroon dem mais certainement il a dû proposer à Khalifa des noms pour le département et moom si boppam il se propose pour la nationale espérant mhm. ah, trop pour son mouvement et, c'est ce qui s'est passé pour mhm. tout tout le donc Khalifa nag dafa rassembler données Euh, ñu ne voilà ki fa nekk ne man bëgg naa nekk. investir investir ma. Mhm. suma parti diw laa fa wóolu et cetera mhm. donc. pour def maintenant le euh, comment la compilation de toutes ces données là mmh. pour sortir sortir maintenant une euh, liste, une liste mmh. nationale et des listes euh, mhm. mais bon toute façon quoi qu'il en soit xam nañ ne en matière d' investiture booy investir. Mhm. Euh, y' a euh, toujours problème a toujours génne liste boo xam ne mhm. ñëppay tàccu ne waa lii lañ doon xaar. loolu mënul mënul nekk. l'unanimité autour d'une liste mhm. mënul nekk. de toutes les façons pour man Khalifa Sall quelque part liste bi am na ci loo xamante nii yenn leaders yi mën nañ ko koo reprocher. parce que Moussa waxoon naa ko la dernière fois. man comprendre ma lu tax ñu investir ko ci liste Yewwi Askan Wi dans les trente. première place loolu je ne l'ai pas compris et, et, et même même sax bu ñu invalider seen liste est-ce qu'il n'a pas euh, fui ses responsabilités par rapport ak Barthélémy Diaz euh, Déthié wala euh, Moussa Tine non Khalifa Sall parce que boo déggee lu Ousmane Sonko di wax mi ngi ko mm. doon wax mais dafa doon bay bayal mm. ak Barthélémy Diaz au lieu mu jël benn décision mm, mais au delà de ça les choses mais également situer les responsabilités mm-hmm. Mm-hmm. li ñuy xaar ci yow nekkul tout simplement bu ñu nee dañuy séddoo ñu ne la am séddaleel mm-hmm. non non leader li ñuy xaar ci yow mooy ngay trancher ba pare di assumer ses ses ses c'est la c'est la nature aussi de l'homme tu sais Khalifa Khalifa Sall ce n'est pas un polémiste. <laughs> Khalifa Khalifa il faut pas s'attendre à ce que. Ouais. mu manque de poigne aussi c'est voilà. ça. voilà donc euh, ça la la la nature de l'homme moo tax que bon mm. certainement. Mm. il n'a pas eu nécessaire de répliquer wóor na ma ne ça aurait été un Ousmane son la ñu. bien sûr liste euh, nationale bi gars yi gën def noonu. wóor na ma le lendemain ce sera un, un ping-pong entre les deux parties. mais la preuve euh, mm-hmm. foofu sax Sonko je pense que ñëwaat na ci mooy ba muy wax euh, Khalifa ne ko passe ma Barthélemy mu ni ko c'est pas une consultation pour wax ko ni. Mm-hmm. Euh, effectivement li nga xamante ni la ñuy wax nañu jël une décision et puis moom ñooñu mu xool nu mu leen di retirer. Mm-hmm. c'était pour dire que ni temps bi mu ngi leen xojoon déjà. donc foofu quelque part leadership bu Khalifa Sall dafa des parce que Khalifa il faut quand même nit yi ko ñu nangu ko sax bañ a nangu tamit. dafa manqué de poigne loolu moom gis nañ ko même au courant de ça est-ce que bëriwul maslaa rek non maslaa nag en da ngay sonn Pape Matar bu hmm. fekkee yow da xam ne yow lii mooy sa bu fekkee yaa ngi ak des camarades yoo xamante ni yoo xam nga ni lii mooy euh, ce qu'il faut appliquer mais attends il faut taper du du poing sur la table nga leen nii lay demee mais boo bëggee aussi bëgg euh, xam nga caresser nit ñi ak yooyu aussi ça ne Mame Birame question bu bëgg laaj mooy euh, tey jii est-ce que euh, événement yi demul ba jox dëgg ñi ñi nga ñi nga xamante ne dañ doon wax ni euh, Ousmane Sonko tey jii mooy le seul et l'unique kii responsable bi nga xamante moo ne ci opposition bi ñeneen ñëpp dañu nekk ay subalterne maanaam mooy leader opposition bi. en tout cas bu nekkee li ñu mën a seetlu jusqu'à présent moom moo xam nga sànq bu bu xale kii Ramatoulaye Sarr waxee ne Khalifa il manque de poigne. tey ñu toll ci contexte bu nga xamante ne nii ñëpp ñu ngi naan Sénégal euh, euh, ñu ngi euh, nekk à un tournant décisif parce que le président xamul lu dul rapport de force. Mhm. rapport de force nekkul ko amul poigne moo ko mën a téye. Mhm. donc ki nga xamante ne nii moo mun a nekk leader boo xam ne Sénégal yi dinañ ko topp mooy ki nga au moins yaakaar nañ ci moom un peu de courage ak koo xamante ni jàpp nañu ne il est en mesure de faire face au au, au régime en place. Mhm. xam nga élection yi passé dafa joxe. Euh, benn euh, benn benn benn symbolique la génne boo xamante ni ñu bëri bàyyiwuñ ci xel. Mhm. parce que quelque part Ousmane Sonko mi nga xamante ne nii ak Barthélémy Dias mun nañ leen a qualifier comme étant les plus radicaux des opposants bu ñu demee ba nga xamante ni gox yi ñu doon xëccoo gagné nañ ko fa waxuma euh, gagné sax mais dañ leen faa plébiscité. Mhm. donc ça veut que sénégalais am na message bu ñuy joxe li ñuy xaar ci opposition bi nekkul opposition yoo xam dañuy toog ci salon yi di seetaan télé opposition bu radicale très bien opposition buy wàcc ci mbenn mi di jàkkaarloo ak régime bi nga xamante ni moo fi nekk loolu la ñuy xaar te comme nu ngi ko expliqué sànq ñi nga xamante nii ñoo fi nekk ngay compter di compter kii leader la kii leader la kii leader la yaakaar naa ne ci ñi nga mën a jàpp ne ñii kat ñooy les hommes de poigne en mesure de faire face au régime de Macky Sall mais boo nee Barthélémy Diaz euh, Ousmane Sonko ngay wax après nga seetaat keneen ku ñu mën di wax muy Mimi di tête de liste benn yaakaar ñoom aussi amoon nañu conférence de presse Ramatoulaye mm-hmm.